te lépp loo xamante ne ñu ngi koy indi ci biir kër yi di ko dundale njaboot ji daanaka lu ci bëri ci biti lañ koy jëlee kon ñu gis ne jigéenu bu ñu lëkkaloo tey ji addu wax seen xalaat ci loolu wax seen i mbébét itam nan lañ leen mën a taxawee dafa jaadu ñu déglu leen parce que xam nañu ne non seulement ñoom dañ ciy loru mais ñoom dañu nekk ay force de contribution ay force yoo xam ne mën nañu wan nit ñi yoon wi ñuy jaar pour ñu fagaru mooy tëdd ko lii nga xam ne moo ciy lore loolu moo tax ñu rafetlu lii nga xam ne moom lañ fi teewe tey mu nekk xalaat boo xam ne itam euh, boo demee ëttu mbootaay xeet yi ñoom dèjà càmbar nañ ko fas yéene ko waxtaane euh, sànq wax nga ñëpp jàpp ci ñëpp euh, sóob ci seen loxo ñoom itam loolu moo leen ñor pour que ñu ñun ñëpp ñi nga xam ne ñun ñoo sekk àdduna bi góor ak jigéen mag ndaw ñu sóob ci seen loxo pour que jumtukaay yi nga xam ne moo fi mën a am ñu teg ko pour mën a moytandiku li nga xam ne ay loraange la ay yàq-yàq la ay mettital loo xam ne loolu mën na ko jur. bu ñëpp mobilisé woo déjà dina ku nekk di nga xam ne kat lii nga xam ne moom la ñu am muy gàncax gi ak li nga xam ne dañoo nañ ko mooy tëndiku balaa muy yàq li nga xam ne mooy jaww ji parce que. bu amee ay yàqu-yàqu foofu ñu ñëpp ay loru ñëpp dinañ ci jël conscience xam nañu jigéen ñi ñooy yaay ñoom ñoo yore kër yi mais xam nañu tamit li nga xam ne mooy seen euh, wareef ci biir société bi te yaakaar naa ni bu ñu xamal ma taxawee tem ne dañuy xamal nit ñi te ñu gisal ko seen bopp déggee ko ci ñoom dina soppi lu bëri ndax ñëpp xam nañu ne rôle ak place jigéen am ci société bi weneen wàll wi ñoom itam dina tax ba yeneen jigéen ñi itam moytandiku yenn yi parce que ñoom bu ñuy liggéey ci gàncax gi kewande gi comme ni ñu ko waxee sànq yeneen saay dinañu def euh, ay jéego yoo xam ne dafay indi ay coppite ci jaww ji ak yeneen moo mooy comme incendie ak yeneen ak feu de brousse yi ñu koy wax feu ak yeneen yi kon yeneen saay itam ci suñ ci liggéey wi ak seen pas-pas loolu dina koy indi ñu moytandiku ko mais itam ñu ñu xam ne ku ci nekk fa nga nekk war ngaa mën a indi ay jéego ci li nga xam ne mooy ñoŋal gàncax gi kon loolu buñ ci taxawee jigéen ñi taxaw ci te xam nañu ne bu ñu waxee njaboot ji ñu taxaw ci loolu yaakaar nañu ne dina indi coppite te Sénégal gi defar fi loolu je que du lu jafe mais gis nañu comme jigéen ñi ñoo fi ëpp te taxawaay bi ñu am ci wàllu woowu dafa jéggi dayoo am na solo lool kon seen taxawaay dina mën a indi coppite mais dina dëgëral li nga xam ne moom la état nguur gi def ba fii pour vraiment aar terroir yi